yéen a ngi teewlu info 221 ñu àdd ak yéen internet info 221 dem rek ci mbirum Adji Sarr ak Atepa ñoom nag fas yéene ñu dem ak jannoo ko juge bi niki alxames bu ñu dégmal ancienne masseuse bi la di Adji Sarr daa dafa porté woon plainte architecte bi di Pierre Goudiba Atepa Goudiba ginnaaw ba nga xamante ni Atepa Goudia bi niki alxames bi nag dinañ jannoo ko ak ñii di attikat bi fële ca tribunal correctionnel bu Ndakaaru mu nekk poursuite bu njëkk nag ginnaaw diffamation li di toppee loolee nag dina serve ab citation confrontation directe boo xamante ni Adji Sarr mi ngi réclamé lu toll si juróom fukki million ci suñu koppar si fonds CFA les échos du ñu xamal ne rek information bi leen dem rek ci probable renvoyé par le juge ba nga xamante ni daf ko mujj ajandi montant bi nga xamante ne nag def na ko ñu jëm ci wàllum consignation lu toll ci cinquante mille francs CFA ak fàttali si plateau 7TV euh, euh, fukki fan ak fukki fan ak benn ci weeru juillet bu ñu weesu la ci mbiru Adji Sarr na rek lu jëm ci une correspondance bu ONG dina nag Adji Sarr jot na confier lu mu wax nag loolu du dëgg ay manipulation la jëmale ko rek ci kii du Ousmane Sonko loolu tax nag Adji Sarr ba mu ko diggee daal di ko porter plainte mbirum viol waaye tamit ne dafa sàcc ab bàgg bu jamaam loolu nag bokkoon di tax ñu gën a mer Adji nag moo tax mu daal di porter plainte kii di Atipa Goudiaby